Mon frère moi je suis porte-parole de Awale. Aujourd'hui, nous avons regagné la coalition Diomaye parce que nous avons les mêmes idéaux. Si je parle une génération d'idées, c'est pas par rapport à l'âge. Mais ku nekk sa jamono ak sa xel am des jeunes yoo ñu ngi mais dañu consortium d'intérêt bi. luy consortium d'intérêt consortium d'intérêt Moi, je ñi nga pas ne bu ñu doon tojal tey Vous bu seeni intérêt en jeu. Euh. directement ou indirectement nu ñu mën def nañ juwo te gis nañ leen moy moy tay ji Amadou Ba ak njabotam ak gaay yi nek ci wetam xam nga lutax ma kontaan ci <laughs> Sénégal plus particulièrement jeunes yi mm. dañ leena dañ leena dañ leena télé détecté ñun amuñu problème bobu tay mm-hmm. légui nak bu lolu amé defal na la lan motax nous sommes aussi pauvres xam nga dégg nga fa ay cours de contrôle de l'état du Sénégal il épingle ay nit ba ci mille milliards fi mille milliards des milliards nga dégg naan gars Il y koo nañ ko yeneen yi nag waxaale wuñ ko loolu duñ ci sax détail parce que a des pour ñu may ñu moo tax sànq ils ont un problème de casting de coaching et de monitoring ils ont montré leurs limites ils n'ont qu'à s'en aller et ça c'est la jeunesse sénégalaise qui est en train de vouloir prendre son destin en main et nous pensons nous pensons fermement qu'ils vont prendre leur destin en main pour compter ci ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñooy cette génération de rupture cette génération de complexe boo déggee ma lay wax loolu sànq maa ngi lay wax dégg nañ fi façon projet bu nekk tànk tànk li ñuy dunde bayewuñ ko ci réew mi dañuy sonal sunu bopp moo tax ci programme u Diomaye président ñu ni ñun la ñu jëloon ñoom dugal ko ci tiroir yi dañ koy indiwaat muy kanaal di kanaal di Kayor kanaal di Bawol kanaal di Gànjool kanaal bi nga xamante ni aussi moom mooy Dande Maayo bi mooy bu jéeri bi ak li nga xamante mooy les vallées fossiles kon bu fekkee ni loolu am na nee naa la nu nous avons plus de deux cent quarante kilomètres carrés yoo xamante ni deux cent quarante mille yoo xamante ni exploité wuñ ko am nga ndox mu toll noonu mais kooku yow loo béyul ci yow la. man man dafa am lu ma la bëgg laaj. balaa may dem ci ci ci monsieur Alpha Diallo. waaw li nga wax fii ci xam-xam. waaw <clears throat> xanaa doomu li ñi fi nekk walla ñi fi nekkoon di fi waaj a mhm. amul. Mhm. ku ci am xam-xam la différence. Mm. wax naa la ko léegi. nee naa la génération bi fi nekk tey ñu am benn candidat bu ñuy wax Jomaay bokk ci génération d'idées génération de rupture boobu moo tax ñu defar un programme de A à Z nag xool nan la ñuy atteindre suñu souveraineté alimentaire waxuma lay sécurité alimentaire de. Mhm. souveraineté alimentaire. gàcce kay ma nga tàmbalee ba ñu toogee carotte nawe ak jën di jóge Maroc di dugg Sénégal. waaw gatché ma nga tambalé ba ay ji ah. de bisap ay jour de buy ay ji de de de Dakar tamare di jóge Espagne di dugg Sénégal deug deug xamna sa way légui dina ci ñëw léegi waye xam nga ni lepp lo xamni mbay la mhm. pour mu jariñ la transformation lañu wax lepp lo xamni matière première la industrialisation lañu wax motax ñu ñun ci suñu programme ñun et ça ça va être de l'encre indélébile Sous nos matières premières, d'autres nous joxe en brut on va tout industrialiser Et pour industrialiser ça soxlawuñ ñun ay bor bon. lañ de la constitution du Sénégal article 25, alinéa 1, les ressources naturelles appartiennent au peuple ça doit être exploité en toute transparence mais au profil de la population donc ressources nous comment comment ana sénégalais les sénégalais ici de la diaspora d'ici et de la diaspora nañ len jël créer ay consortium ay société de droit sénégalais 100% sénégalaises. sénégalaise defal l'exonération exonération fiscale et douanière ni ont koy defalé multinationale bi bu jaré 30 ans jar parce que ñoo ko moom ñu fait un ci conseil d'administration

ñu créer ay industrie lepp lo xamanteni tay tey zircon mën na def elminite mënoon na koo def lu mel titanium titanium en iron bi nek tissadal ci Norvège mais Sénégal moko jox elminite à 100 Il lañuy que nous dioxyde de titane kon ñun amul nous les pays arabes là nous sommes plus riches que ces pays là et ces pays là n'ont que le pétrole et le gaz aujourd'hui le Sénégal est plus gazier que pétrolier nous nañu dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz kon Sénégal nous avons 29 blocs de pétrole mais nous devons être sur orbite du développement millions de tonnes de fer hématite à 258 millions de tonnes magnétiques cela veut dire que ce pays là devient un pays industrialisé Depuis bu ñuy wax tey métallurgie sidérurgie lan indi énergie bu doy alhamdulilah bara samba ñu koy tabax gaz bi nga xamante mom nga am gis nga centrale bi ñuy tabax fi gaz mo koy dox pollution bi ñuy wax ñun bi ñu am muy gaz bi ñu am muy méthane day polluer mais day polluer moins de 25% que le pétrole day polluer moins de 45% que le charbon donc c'est polluant mais pas comme les autres kon buñu jappé ni ñun am na gaz boobu ñuy wax méthane am na quatre atomes d'hydrogène ak benn atom de carbone ñu jógee ci loolu tey àdduna bi ni ñuy tiitaroo Norvège sur l'énergie verte Norvège ngee cent soixante dix heures la am ñun ñu ngi ci trois mille heures d'ensoleillement looloo tax ñu ni la le nucléaire civil les centrales solaires thermodynamiques des centrales solaires photovoltaïques sunu gaz sunu euh, kii bii dañ ñu ko Euh, sunu gaz bi ak li nga xam moy éolien bi nek fi ci tayba jaay ngelaw li sax ñu ci gëna ngelaw ñun sunu digënté ak sunu borom yàlla de seeratuñu dara est-ce bu weer dee dañuy yónnee facture bu joggé ci asamaan si di wàcc <laughs> cela veut dire que ah, non si nous ne sommes pas indépendants en énergie cela veut dire que ni ñi fi nek ño xamul fan lañuy taxaw du moment où xamuñu fu ñuy taxaw yow tay bu ñu amee énergie bu doy industrialiser sunuy matière première transformer sunu mbay li ñuy bay yépp di ko ndékkee di ko añee di ko reeree nga xam ne lii mooy suñu besoin mm. am nañu suuf bi am nañu jant bi am nañu ndox bi am nañu ndaw yu jàng ba am seen ingénieur am nañu ndaw yu am kàttan buñ naan la 75 quinze sénégalais ñu ngi liggéey ci tool yi diggante Espagne ak Italie ñu am li ñu war a am ñun ci suñu réew pourquoi xale yi di jël gaal gi wala di dem di dee ji Nicaragua ils vont pas le faire mm. mais problème bi mooy c'est un cercle restreint qui est en train

conseil d'administration yi bu jaree sax ñu wutal leen titre foncier jox leen souf ñu ñew ak seen njabot investir ci or 6 mois 5 mois yu nek nga dem jël sa bénéfice mais ko amul kenn ko koy bañ. mais problème bi moy il faut avoir le courage de le faire ñun japp nañu ni ci programme jomay tout ce qui touche les intérêts vitaux de cette nation sénégalaise mhm. doit être sauvegardé dañuy am nak di wax nan non non contrat yi kenn du ko signé noonu xam nañu ni bépp contrat de concession am une ay clause de révision. nous nag noonu wala kay Nous ci mais après nous ci dugg pour nous expliquer expliquer sénégalais nous ñu comprendre les vrais enjeux parce que nous xam nañ fiy metti nous sommes metti ñun sunu loxo lañ pour Sénégal sur l'orbite du développement il faut qu'on puisse amener ce Sénégal dans des lendemains meilleurs jàpp nañ avec le candidat Diomay mon moo mon le Sénégal à bon port te loolu on a espoir sur ça parce que mu ngi ànd ak jamono incha allah incha allah damay dem ci euh, Alpha mhm. parce que maa ngi lay gis sànq bi muy wax yaa ngi acquiescé mhm. donc euh, xam naa am na loo ci bëgg wax xam nga damay doolu rek daanaka hmm. wax na wax na lépp donc débat bi xam naa mottalante rek lay doon ndaxte wax bi day daa juboo trop <laughs> dafa juboo <laughs> daa juboo ndaxte euh, xam nga tey ji

ça faisait beaucoup sur les réseaux sociaux la solution non de les les Africains in Europe mais libérer l'Afrique de certains Européens qui les exploitent en quelques mots la solution n'est pas que les africains doivent se déplacer en Europe mm-hmm. mais il faut libérer les africains de certains européens qui sont en train de les exploiter mo meuna gëm lool yow nga nek sa bir dëkk nga gëm ne ne tubaab bi mo la meuna genn ci ci ci gi nga nek donc c'est paradoxal benen bi mooy souligner na le chômage wax na la 20% lool moy les chiffres officiels pourquoi parce que da ngay xam le chômage dañ koy calculer avec les chiffres du de l'OIT mm-hmm ñoom dañuy jël trois critères que je suis pas d'accord d'ailleurs il y a deux ans trois ans euh, BIT bureau bi génnee na Sénégal était à 50% de chômage mhm. Wadi de dëkk Thiès la fàtte ni mu tudd te yoroon yor j'ai oublié organisme bi mu yor dafa génn def conférence de presse ne loolu du dëgg déedéet ah, euh, Thiès la dëkk ma moom bëgg na nekk président bëggoon na nekk président sax si bi j'ai oublié son nom léegi au fait les parce que BIT dafa jël vrai calcul bi li tax ngay xam loolu mooy boo demee ci yeneen dëkk yi ni ñuy calculer pourquoi parce que tey bu ñuy calculer sa taux de chômage dañuy ñëw buñ taseeg yow ñetti critère lañ lay laaj amoo liggéey nga ne wa nga ne aw ma nga ne ndax yaa ngi ut liggéey boo ne waaw il te considère euh, boo ne waaw mhm. ñu considéré comme chômeur boo nee déedéet il te considère pas comme chômeur ah c'est le non lañ koy calculer troisième bi ñu né la ndax buñ la joxé liggéey fi ak ñetti weer di nga dem Bo ne non pareeguma pour dem il te considère pas comme un chômeur. jusque là waaw donc motax ñom seen seeni chiffres les 20 li ni c'est de la statistique. C'est simplement pour amadouer les gens pour mmh. casser la réalité. Mmh. mais ñepp xam nañ il n'y a pas 20 de la population qui ne travaille pas au Sénégal. Nous mmh. ñun ñëpp xam nañ ëpp na loolu ça c'est les chiffres officiels dund dugg ci les importations gis nga euh, France dafa amoon ku ñuy wax Ben, ministre ku doon yor finance su euh, kii Louis 14 ou Louis 15. moom dafa gëmoon ne exportation moom mooy importation exportation moom mooy dundal la France français yoron une industrie gëmuñu loolu ba mu leen ba jour bi jaagam français mhm. pour vous comment tu peux exposer ton pays ci l'économie économie exogène industrie c'est la meilleure des solutions en tout cas man mhm. gisaguma bu développer sans se reposer sur le secteur primaire et le secteur secondaire Bon, bah, peut-être on peut dire quelques exemples près, peut-être la France. Mhm. Mais moi, c'est une histoire coloniale C'est une bon histoire mhm. mais pour nous gagner il faut industrialiser ce pays. dans le domaine agricole nous avons tant de matières qui ont été transformées. transformer. Mhm. par exemple nous avons gën à lu des Sénégal a importé 426 milliards ou 427 milliards par an soit 1 million de tonnes de de par an. Mhm. on a un besoin de 80 000 tonnes par mois donc ça veut dire que les ñuy importé doy nañu pour nous. mais le paradoxe c'est que dans la vallée du fleuve Sénégal nous avons chiffre de 1 million de tonnes cela veut dire que soit les chiffres ne sont pas vrais ou ils sont en train de nous mentir parce que mhm. depuis bi mënul 2 millions de tonnes. Dès que que nous le 1 million de tonnes. Alors où sont passées les 920 000 tonnes Quel le c'est des invendus. Mm. Donc il y a un problème. Et surtout dans leur manière de manigancer les chiffres. On va sur l'huile parce que le Sénégal est pas l'huile de de et 800 000 tonnes de guerre, de faire l'autosuffisance du Sénégal en huile. Le mm-hmm. Sénégal préfère dire 200 milliards de l'huile à l'extérieur. Oh. Alors que Amgue, yaa ngi jël xaalisu sénégalais chaque at lu mat 25 milliards de subventionné seulement la la waxuma l'agriculture agriculture de seulement rachid. pour que nga am arachide bi war baykat topal la ko comme ni mu waré. Mhm. nga sàggan ba les chinois un protocole bu lay yóbbu un accord bu lay yóbbu ak ñom ba pour que guerte gu ñor Sénégal ñu jël ko yóbbu Ñom ñu dem sen dëkk defar dëwlit bi diko jaay sen sen dëkk parce que ñom xam nañ ne huile rachid c'est la deuxième meilleure huile du monde parce que c'est moins riche ce qui justifie ça c'est que si ci boutique suba teel da ngay gis borom boutique bi génn bidon diwlinam ci c'est bu tàng parce que C'est de l'huile de palme C'est 70 d'acide gras saturé Cela veut dire que à température ambiante beaucoup koy teg muy way mhm. mais loolu mënul am ci diwlinu gerte parce que diwlinu est à 13 C'est cent mhm. les nutritionnistes consomment l'huile d'olive après l'huile huile d'arachide pourquoi tu as président bi dégg naa ko bi mu demee Fatick. Mhm. mu ne huile huile d'arachide huile de qualité là huile de qualité ça veut dire quoi ta population mérite pas de manger cette huile donc ben, nga jël xaliss sénégalais yi def ci biir nga nangu les chinois ñëw jël gerte gi yobu ça veut dire que tu es en train de subventionner les chinois yi di lekk. Mhm. parce que say vingt 25 milliards yi ngi si def ñom dañ ko ñëw jël yóbbu parce que prix prix économique c'est 25 milliards d'euros, donc il koy a impact. Mhm. tant que l'impact est ko ci ko ne koy subventionné voilà les situations auxquelles nous dugg lithium bi je wax le monde est tourné vers les vers les véhicules électriques. Nous avons des réserves de lithium pourquoi on ne trouve pas l'expertise qui nous permet. Mhm. d'avoir des industries qui vont faire des batteries on peut faire une énergie tamit solaire boo xamante ne day fonctionner ak batterie lithium yi mhm. Bolloré bi mu ko njëkkee gis euh, en en comment dirais en Bolivie dafa dem taxaw ak le président euh, le président euh, Bolivie ne ko yow yaa yor l'or noir de demain et aujourd'hui ce dernier ses ses réserves sont épuisées kii tey jii xamal na ma ne ma Sénégal ana pourquoi le Sénégal ne développe pas ce réseau pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays Si vous avez ne 70 de dañuy nekk si dëkk bi yëpp ay chaque acte, nga def ci ay milliards ñuy gën a kaas boo calculer li présidents li Macky Sall di agriculture ñetti par jour par baykat 15 francs au même moment l'Union européenne met 1 milliard d'euros par jour, les États-Unis 900 millions de dollars par jour. Mhm. Ils sont 3% de leur population à faire l'agriculture. Nous, nous sommes 70. 10 personnes, 10 000, beaucoup 2 personnes, 10 000. Mais en fait, c'est assez paradoxal parce que hmm. ni vous m'avez dit, ni vous hmm. j'ai comme l'impression que ce nos dirigeants, soit à mon soit il hmm. y a autre chose, quoi xam nga réponse bi mooy li mu wax sànq di commencer mm. phrase bi le courage. le courage Nelson Mandela da doon wax une idée qui n'est pas accompagnée d'une action c'est une perte de temps. oui mu ne une une idée qui ne découle pas une action qui ne découle pas d'une idée. Mm -hmm. c'est qu'on énorme perte de temps aussi. Mm. donc cela veut dire que yow boo amee xalaat te amoo courage boo ko defee. Mm-hmm. tu perds ton temps. Mm. bu fekkee tamit yaa ngi def action te tegoo stratégie boko défaré xamal ne aussi yaa perdre sa temps donc c'est ce courage là qui manque à nos dirigeants pour faire face à aujourd'hui l'hégémonie laay wax l'hégémonie manam la pression bi nga xamné les autres pays de l'extérieur ñu koy ñëw di def des prédations sur ce risque mm. sur ce sur ces ressources tay no gissé les ressources du Sénégal waxal na la fi wax Norvège comme ça veut dire que toutes les ressources du en tout cas yi exploiter exploité ñu xam amul ben bu ñuy défé fi amul benn boo xamante ne le sénégalais lambda da ciy profité que ce soit sur les dégâts environnementaux que ce soit sur l' impact direct pour une industrie l'or ñaata tëgg ñoo fi nekk xam est-ce que am nañ comptoir fu ñu jëndee or fii biir Sénégal tu te rends compte Burkina Faso qu'est-ce qu'il a fait tout récemment construire ay ay ay ay ay industrie yu koy yu koy exploiter olom ne oram génnatul fii de même que le Mali Mariga Gold de même que le Mali léegi nag yow nag bon je crois pas qu'ils vont réussir parce que vous faites que bi gën a plus fayda bàyyi ko nga je crois pas que des, ressources aussi importantes tu vas faire quelque chose en fait nous nous avons l'esprit de Colbert c'est quoi Dieu le sans transformation yow le rek là tu vas exposer tout le pays pourquoi parce que tey ji industrie li mu les gens, absorber ci ay nit dafa bari boo tout le Touba si secteur bi ñu

comme un ami, comme il disait, tout ce qui se passe à Touba, il faut le dire Touba. <laughs>